population Dougar ñoo sonn ci xëy-xëy yow nga yor say terrain di ci bay say papa xam mbay say baay xam mbay nga judd xam mbay di bay di dund di dagg ci terrain yi di tabax pour say doom dëkk amoo leneen lu dul mbay mooy say revenu ñu xëy-xëy jël terrain yi jël ko dem jox ko benn marocain boo xam ne xamuñ fu mu jógee ñoo jox ko terrain yi gratuitement muy dagg di jaay 7 millions te naan social la xam ngeen ne loolu du social benn moom fañ ko joxoon na fa dellu ñu ëlbatikuwaat ñoo toog gis armée ñoo taxaw foofu naan xaw ma dafay dafay terrasser ana armée terrasser ana privé yi war a terrasser fu ñu nekk armée li mu li muy def loolu du liggéeyam du rôlam site boo ci ñëwee fekk mu am coow am fitna da nga cee war a maandu li ñuy demandé mooy armée na génn ci site boobu parce que waa dugaar ñoo ko moom te bëgguñ fi gis armée bëgguñ fi gis Masamba bëgguñ fi gis Mademba pick-up na génn ci suufu Dugar dem fañ ko joxoon 500 millions yi muy wax nag naan moom lay joxe ndàmpaay wa dugar soxlu wuñ ko ndax ken musuko jox suuf dugar li ñu bëgg buñ ko amulé danañ dem baaré ji route nationale ben danañ fa joggé dem ci militaire yi jar marlo ak ñom tek ci nak bakken wa lu ñu am jël bo démé ci préfet préfet né la mbir mi sama mbirum bop la té bo génné mu def ko ci tiroiram ndax bañ dalé diko bind lettre ba légui musu ñoo tontu té ba paré mom mo fi togal wa pick up mo leen fi nekkal site bi 72 euh, hectares la 30 hectares yi moom la ñu tabax mu cité des fonctionnaires ak waa port tabax nañ ko ay kër ba pare ñoom ñoo am xolu ñoo fekk waa dugaar dëkk seeni kër ñu génnee leen toj seeni kër ci bis bi waaye dugaar amuñu xolu ñoo fekk ñoom lañ tabax di ko toj léegi nag 42 hectares yi ci des lañ bëgg nañ ko fi bàyyi ci jàmm ak salaam